ñaanal mboolem koo xam ne teew si nga ci bés bi waaye di ñaanal mboolem koo xam ne aman nga yéene teew si bés bi di nga xamal ne damay ubbi jitaay bi ngir ñi nga xam ne ay gan lan ñu ñëw ci dëkk bi nga xam ne ay kilifa lan nu mën leen cité pour ñi nga xam ne dana am programme ci waxtaan wi nu mën a xam ñan ak ñoo fi teew mais sama discours ñëwagul ñu ngi jiital ci nuyoo bi Serigne naa Diop Ndiayène ndax moo fi nekkal waa Ndiobène kon nag ñu ngi koy nuyu di ko di siyaare sëñ Mamour bokk sañ ñi fi teew waaye di siyaare sëñ maana Diop kooke euh, di siyaare kenn ci soxna yi muy soxna Faati Ballangom di setu sëriñ Baara ndax sëriñ Baara moo meññi waajuram bi ko meññ di jarbaatu sëñ Sidi Moxtaar léenge tey mu ñëw yendu ci dëkk bi ngir xeeñ si mbokk ñu ngi koy nuyu di ko siyaare di ko dalal moom itam di ko ñaan itam mu ñëw teew ci jotaay bi ànd ñoom di siyaare mbooleem autorités yi nga xam ne ñëw nañ fi ku mel ni monsieur Ngagne Diallo yabal na fi délégation ñu ngi koy sant di ko gërëm di sant euh, monsieur le maire Mamoun Sylla moom itam ñëw na fi ànd ak délégation ànd ak soxna Thiara Sarr ak mbooleem responsabilité politique yi nga xam ne nekk na ci gox bi ñu ngi leen sant ñoom ñëpp jot nañ seen leetar jot nañ seen ndaw itam ñu ngi leen sant di gërëm ku mel ni Serigne Talla tam jot nañ leetaram di ziare mboolem ñu fi teew ñëpp dëkk yi ñu jege yëpp gis nañ mbooloo mi teew nañ fi xam naa suñu leen limee jotaay bee xaw a guddi te sëñ Mor yaa dafa war a commencé ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm li wax yàlla nañ ko commencé ci bisimilah rahmaan rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin kon nag nag ñëpp teewlu ñu commencé liggéey bi ndax guddi na si kon ñu yëkkati kaddu gi rek jox ko sëriñ Mor Ndiaye ci kaddu waa Touba sama waaju baax ji nga xam ni fu may raxasee atelier laay noppaloo su ma demee damay jëndal ndox Evian la may jëndal bu mag su may dem yóbbaale loo xam si dinaa ci mën a dépassé te dépassé bu géwél nag daa mën a garaaw daa mën a sakkante jërëjëf Ndiaye. jël lu leen siyaar bi di ci jël Cheikh Mountakha Bassirou suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ak mboolem njabootu Cheikhul Khadim gépp rek di ñaanal njabootu Cheikh Massamba Diop Samb Cheikh Abdou Rahim suñu borom guddal ak faram may ko wér ak mboolem njabootu Cheikh Massamba Diop Samb gépp rek di dellu di leen nuyuwaat bu baax di leen sant di santaat yàlla bu baax jataay bi di ñaan mën ko am jataay baree bari ndax lii daa yombul nit ñàkk dara te xam ko sax moo gën am ko te xamu ko ndax mbir bis bii day bis boo xamante ni buñ ko fi njëkkee wut it bokk nañ ci ñi ko njëkk kon war nañ koo jox gëdd bu mat sëkk akub cër ngir ku fi dikk buy dellu gën ñoo naw waaw kay ndax gan bu dikkee ki ko war a dara bu ko gisul du dal kon yéen ñi jóge Touba ak yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk ci biir dëkk bi yéen a war a dalal gan ñi gan bu tendee falee ba xamul fu mu jëm day dem ñibbi te lii day bis boo xamante ni mooy conclure ndax am at lañ ko doon liggéey ba war a daje ci penc bi war cee waxtaan sottante ci saafonte ji xam suñuy mébét xam su suñuy yéene ndax li nag defuñu ko rek ngir dañuy ndaje li dafa nekk secteur boo xamante ni dafa war di développé à chaque fois ñu xam ni bu sura lii ñuy woote développement développement nag mbooloo mu ànd di xàccandoo di dóorandoo ñëpp def ko seen yitte mooy dëgg ndax na nga ni war naa feete bu ñu jullee ba pare baax bi day feeteel ñi ci kër yi ñëpp génn ñu toog ñu bokk waxtaan ñu saaboonte foofu nag ci laa ci way sama kàddu di doolee soññee rek nañu gën a xamaat li ñu am li ñu am daal mooy bu sura am njëlbeen gi nag mooy ci section yi fu ci mel ni Ndakaaru fu ci mel ni Touba fu ci mel ni Ndar ak beneen ak yeneen section yi fa nekk yëpp foofu nag dañ fa war a gën a góor góorgóorluwaat gën faa war a mën a soññantee waa ndax dañoo war daje di waxtaan di kenn ku ne lu sa morom fanaane wala mu yendoo nga xam ko loolu mooy njëlbeenug liggéey bi ndax man étudier naa ko lu si bëri dafa am loo xamante ne dañ cee war di xalaat xam ni développement bu fekkee fa ñu ne comme ñi ñu nekk tubaab bu ñu dajee rek boole suñuy dërëm boole suñu ñaar dërëm rek commencé nañoo développé ndax ni ma koy waxee amoon naa ci benn idée boo xamante ne bëgg naa ñu partagé ko ak jigéen ñi mu ñu xam ni ñun ñëpp Touba leen te am na nu ñuy waajalee màggalu Touba yéen xam ngeen ngay dégg ñu naan la ay ñetti caabi léegi nag yéen lan moo tax yéen ñi bokk genn bokk gi mënu leen ngeen jàpp bis boo xamante ni dañ naan kat bis bi kenn ku ne lu waaye am na ko indi donte juróom fukk la mbaab téeméer suba même bu ndaje yi buñ ko wóotewul sax seen i dërëm ak seen ñaar dërëm dina mën a dem bu ko defee otage yi ngeen di xotti ak paas bii day yomb ci yéen ndax ku yor sa juróom fukk sa jëkkër dimbalee la juróom fukk su su at at ba at mi del si loo ci bëgg a def mën nga ko cee lu ci ne nag ay xalaat la rek ngir bu ñu jógee war a dem lépp jàpp ni kon li ñu am nii nañu xam mooy lan gën cee delloowaat ab cër gën a xamaat li ñu am ni ma ko waxee rek ni moom day ñàkk dara te xam ko am ko te xam ko sax moo gën kon nañu góorgóorluwaat ci li ñu nekkee xam ni dëkk bii ñun ñoo ko mën a développé ñun doomu Boussoura doomu nag boo ko waxee du ñu ci yeewoo ci dëkk bi du ñu ne Touba ñun ñëpp ñooy bokk dugal suñu loxo ndax nag nit ki lam lay nawe rek yaa koy yaa koy jëf nit lam lay nawe yaa koy jëf nañu gën a fonkaat lii jox ko cër gën a changé waat programme bi programme bi nag moom mel na ni sooxee na lool ndax niñ ko waxee woon mel na ni tënkee wuñ ko fi noonu mu mel ni dañoo waroon am ay commission yi dalal gan ñi ñiy yi ñi nga xamante ni ñooy organiser fii base bi am protocole boo xamante ne képp ku ñëw ñoo naan toogal fii dalal fii ba kenn ku ne xam fa nga war a ne lii nag dañ cee war a waxtaan baax ba di ko organiser organiser bu normal ndax ñun ñëpp dañuy dem ci ay cérémonie xam nañ cérémonie nañ koy defee kon nañu góorgóorluwaat ci lii xam ni suñu alal la ñoo ko war a sàmm suñu mbir la ñoo ko war a dundal li nag la mu am moom rek lay wàllee kon nañu wàcce boobu suñuy kàddu di leen ñaanal suñu borom defal ñu ay tawfeex ñu fee daje at yu bari te at mu ñëw dàq at mi romb ci daraje Seydina Muhammad kàddu yi dëng na euh, lool waaye nag lépp rek bëgg lu baax rek bu jubee nañ ko sant yàlla bu baax yow asalaamaaleykum wa rahmatullah min seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammad ibn abdallah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima alhamdulillahi alladi hadana li haza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki jullit yi ginnaaw bu nu musloo ci seytaane tàmbali ci turu sunu borom subhaanahu wa sant sunu borom subhaanahu wa taala julli ci yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi képp koo xamante ne si ni jaar nga ci yoonu yonte bi ba ilaay bi diin ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di indi kàddu yi layent biir ak kàddu yi suy naa war dafa wax ni aw yiw nekkul ci nit ñoo xamante si ni bëggul ku leen fàttali laaye biir waaye yiw nekkul ci nit ñoo xamante si ni amuñu ku leen laaye biir kon diine islaam ni ko yonente waxe ak diinu nasiha kon lépp laaj bi gër la te lépp loo xamante ne sin xam nga ci lu baax day warugar nga jot li ko sa mbokki jullit ndax kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruuna bil ma'ruufi naa ni anil munkar ginnaaw bu nu nekkee xeet bi gën ci xeet bi day war nag nu nekk ñoo xamante ne si ni dañuy digle lu baax di tere lu bon sëriñ bi nee na képp ku la digal lu baax moo la tere lu bon waaye ku la digal lu bon moo la teree baax doomu aadama nag ngir mu mën a jëf lu baax il faut que mu juuyoo ak bakkanam xeex ak bakkanam balay bakkanam wala mu néewal ko doole ndax dafa am façon ñetti nit am na ci koo xamante ne si bakkanam day dund ruuxam di dund suñ ko mën a di wax day nekk cinquante cinquante nga xam si ni ruu gi ak bakkan bi nooy tolloo ñoo nekk mooy ñi nga xamante ne si ni mën na noo def lu baax lool waaye ni defe lu baax noonu la ñuy defe lu bon saru saa bu demee ba tollu sa bakkan nooy tolloo luy jëf da nga julli da woor lépp lu la yàlla digal di ko def waaye nag doo bàyyi lenn lu la sunu borom subhaanahu wa taala tere kooku nag mooy ki nga xamante ne si ni bu góoroo rek bakkanam ëpp doole tuur rek bu yàggee roogi day feebal bu roogi feebalee nag bakkan bi bu roogi bu bakkan bi feebalee roogi ñëw ci kawam ëpp ko doole mu man di jaamu yàlla bàyyi li ko sunu borom subhaanahu li fi nag yaa ngi boole jaamu yàlla ak mooy yàlla na la leer àgg ko ndax bakkan bi fokk nga xeex moom ba ëpp ko doole mu mën laa libéré pour nga mën a jaamu yàlla sunu borom am ci ñoo xamante ne siin nag wala asbillahi mooy seen ruu dafa dee seen bakkan rek mooy dund ñooñu mënuñoo def lenn lenn lu baax a ansartahum am lam tunsirhum laa yu'minuun mooy ñi alxuraan di yi wow na ba leen waar ku leen bañ a waaree waaye duñ dugg mukk mooy si ni dafa dee am ci ñoo xamante ne si ni noo gën nit ñi mooy ñi nga xamante ne si ni seen bakkan dee na seen ruux di dund ñooñu mooy ñi nga si ni mënunoo mooy yàlla dun mooy yàlla benn yoon kon nit ki ngir mu mën a def lu baax il mu xeex ak bakkanam boobu ndax ñetti noonu la doomu aadama am seytaane bànneex bakkan boo xeexee ba néewaleen doole rek danañ la mën a libéré nga mën a jaam yàlla ñoom nag ni ko sëñ bi waxee rek seenu xeex moom du gaaw a jeex koo ci daaneel day jugaat kon jaamu yàlla yooyu nag suñ ko waxee muy def lu baax yemul ci julli ak woor ak nat asak yooyu ci la bokk waaye lu mel nii nu dajale fii muy jokk ak mbokk wattaqullah lasi tasaaluuna bihi wal arham inna allaha kaana aleykum raqiban loolu kon ci jaamu yàlla gi la bokk ndax su ëllëg suñu borom subhaanahu wa taala ko laaj naka noonu jariñ jaami sunu borom subhaanahu ci sa doole sa xam-xam sa alal ndax sëriñ bi day wax ci masaalikul jinaan amaat tasadduq maal infaax fa jamwaa xayraati bi ittifaax saraxe asaka dugg na ci biir ak mbooleem lu nit di def te yàlla tax ak jël sa alal di ko financé ci yoonu sunu borom subhaanahu wa nee na yooyu dajale na mbooleem yiw yépp ci dëppoo boroom xam-xam yi ka kulli ma yakun naf'ul muslimin wa silatu ay aytam kulla naka noonu lépp loo xamante ne si dana jariñ ab jullit bokk na ci yooyu jokk ak mbokk wa qiila in xadara yawmul baari wa darabal ciraati fawqa naar sëriñ bi nee na ëllëg yawmal xiyaam buñ jëlee siraat ci kaw jaxanam ku ko jéggi ku nekk jàll dem àjjana ci jàmm képp koo xamante ne sii nii jàlloo ko tàbbi ca sawara ba yàlla ci yàlla musal nee na nag am na ci ñoo xamante ne si su ëllëgee sunu borom subhaanahu wa dina digal aji woote mu ni leen ana ñi daan liggéeyal jaam yi ana ñi daan jokk mbokk yi nu ni noo nii mu ni leen ñëw leen ngeen tàbbi àjjana ci lu dul benn jafe-jafe kon fa axdihim turran li wettilaahi faqat bilaa mannin wala tanaay na liggéeyal jullit ñi ci jox leen sa alal waaye saraxe def mboolem leen sunu borom subhaana digal ci alal joxe ci yoon sunu borom subhaana wa taala jokk sa mbokk ndax danoo nekk foo xamante ne si ab dig la boo xamante ne am na fu mu yem lu gàtt la jëm foo xamante ne si ni amul fu mu yem moo tax mu wax ni la say jëf na nga ko baril kem ni nga soxlaa ndimbalul sunu borom subhanahu wa na nga jëfal sawara comme lu toll ni la nga ca mën a muñ na nga jëfal alaxira comme lu tolloog la nga xamante ne si nii moom nga fay sax am benn boroom xam-xam bu ñuy wax jëw si nee na coonab jaamu yàlla sunu borom subhanahu day jeex mu des tiyaaba ja mooy yàlla lu mu neex neex day jeex mu des bàkkaar ba tiyaaba moo yóbbu nit àjjana bàkkaar moo yóbbu nit sawara nu góorlu bu baax a baax moytandiku lépp loo xamante ne si ni dañuy xëcc ci jëm ci ay bàkkaar bokk na ci jëw bokk na ci seede ci sa moroom jullit lu ñaaw ndax sa moroom jullit bu nu la waxee ci moom lu ñaaw sax naa nga ko dogal ngànt ñu toll ci jamono joo xamante ne si nag nit ñi gis yow ayib moo leen gënal gis yow ak baax nett li say ayib moo leen gënal nett li seen baax sëñ Saalu Mbàkke nag daal wax ni doomu aadama su tuddee su tuddee say ayib daf laa bëgg a weer yàlla bu ko tuddee daf laa bëgg a yërëm kon ayib boo ko suñu borom tuddee rek bëgg nañu tuub waaye doomu aadama fu mu ko tuddee rek bëgg na laa toroxal mu mel ni bu nu xoolee ci ginnaaw ci soxna si yonente bi sallallahu alayhi wa soxna ay Aysa bokk na ci ñi ëpp xam-xam bokk ci ñi gën a solo ay hadis bokk ci ñi gën a ragal yàlla waaye tuumaal nañ ko jëf ju bona bona bon muy njaalo loolu nag li tax nu koy jàngale comme kii leen tuumaal lii doomu aadama yi saa suñu la tuumaalee dara rek na nga muñ del suñu borom subhanahu ku la gën fuuf nañ ko lu gën a garaaw na la tuumaal ndax buñ xoolee ci xare ba ni mustalax yonent bi sallallahu alayhi xare bu nekk dafa am ku mu daan àndal ci ay soxnaam ndax maandu ci ay soxnaam xare bu nekk am na ku muy àndal yàlla dogal xare boobu mu ànd ak soxna Aysa bi nu demee ci xare bi ba war a ñëwaat soxna si gëléem gi mu waral ki nga xamante si nii moo ko doon jiital ñëw fekk gëléem gi yées mu jël gëléem gi rek daal di yóbbu fekk soxna si dafa am lu doon wër ndax ab jaaroo ma war wax mu di ko seet ba ñépp dem am benn ba bu baax wax safwaan romb ko ne ko kii du sunu yaay soxna Aysa looy def fii mu ne ko man de daa am lu ma doon wër ñëw fekk ñu dem bàyyi ma mu yësal giléemam soxna si war ci giléem gi bi soxna si waree ci giléem gi ñëw dugg ci dëkk bi am benn naafeq bu ñuy wax Abdullahi ibn Ubay gis leen ni leen yéen ñaar ñi day muccantewu leen seen biir daa leen tuumaal def jooju directement bi loolu amee nag coow am ba soxna si delluwaat kër baayam ginnaaw bi moom yëgul li xew waaye yonte bi yebal na ko kër Seydina Aboubacar Sadiq te xamul lan moo xew moom ndax nit yenn saa yi dinañ la wax loo xam ne xamante yow yëgoo ci dara nga nekk innocent benn bis mu ànd ak seen soxna su ñuy wax umu mustax dem ca àll ba am lu soxna soosu waddal moom umu mustax ba mu waddee mu ne yàlla na yàlla rëbb ki nga xam ne mooy mustax sayda ay soxna Aysa ni ko mustax day bokk na ci ñi nga xamante si nii ñoo dem Badar nga koy ñaan rëbbum yàlla soxna si ni ko xanaa déggoo lim lay wax xal ci biir dëkk bi fu nekk dem na fa fu nekk dem na fa nee na dañ doon njaalaw ak diw soxna si loolu dikk ko taw kaw bam def ko feebar mu tëdd ko feebar naaw feq yi wër ci dëkk bi fu nekk dafay wax ba am ci jullit ñi sax ñoo xamante ne si ni commencé nan di gëm waxi naaw feq yooyu ci la sunu borom subhanahu wa taala wàcce aaya bi ne wax aayatul ifki inna lasina jaa'uuka bil ifki ilaa aaxiri yàlla wax leen ni leen ñi nga xamante ne si ñëw nan andi aw duuru mag a mag mag muy aw sos loolay luy def day aw ay la wu mag ci ñoom waaye nag nan xam ne kenn ku nekk daal la nga ca wax rek mooy sa bakkaar waaye nag ñoom Abdullah ibnu Ubay ak naafeq yi ñoom noo yaanu bakkaar bu mag la waaye jullit bu ci gëm nag ba am lenn loo ci dugal wax ko ci ah su boobaa da nga gàddu bakkaar. ndax wax jii ban leen ko waxee luy tee ngeen dogal seen moroomu di leen ngànt wax ni lii kat aw sos la rek kon yenn saa yi nu wax na ci nit loo xamante ne si ni koy jëkk xool sa bopp bu fekkee loolu jomm nga ko rek nga jombal sa morom jullit mbu moo xamante ne si ni jékkul ci yow rek bul ko solal sa bokk jullit moo tax suñu borom wax leen ni leen ba ngeen déggee loolu li tee ngeen dogal ko ngànt ngeen wax ni liikat aw sos kese la ah waaye nag li nga xam ne yéen a koy wax ci seen gémmiñ li di ko génn seen làmmiñ yi ah da ngeen yaakaar loolee day aw yiw la ci aw ay dong leen jural ci ëllëg sunu war subhanahu dana leen ci mbugal mbugal mag a mag képp ko xamante ne si ni wax nga ci tuuboo kon loolu li muy firndeel mooy tuuma yàgg na ci jamono moo tax Seydina Aboubacar bu déggee loolu ci mustax ndax mustax wax na ni doomu bàjjan la ci Seydina Aboubacar Seydina borom moo ko daan dundal moo ko doon joxel dépasse këram waaye bi loolu amee dafa téye loxoom ni kooku day dootuma ko dundal ndax comme que mooy war lii di ko wax sama njaboot ca ma koy dundal kii day sequtuma moom dara waaye ci mbaaxu yàlla yàlla dafa wàcce aaya wax ni yéen ñi nga xamante ne si ni da ngeen a am teraanga yoo xam ne yàlla moo leen ko teral bu leen xañ ñi nga xamante ne ñooy seen jigéen ñaare waaye teraanga jooju na ngeen ci joxe ci yoonu yàlla sunu borom subhanahu wa taala xiiwal bu leen yàlla xiiwal leen kon waru leen ci fayante ndax sunu borom moo leen ko xiiwal Seydina Aboubacar yokkal ko la nga xamante ne si ni moom la ko daan jox kon loolu jànge nañ ci nit ki lu mu la mën a def rek la nga séq moom ci lu baax. na nga ko def ndax nit bis bu nekk nga jikko lu baax mu sax lu bon waaye su boobaa defal la sëñ Tuubaa waxan ci ndax du xadaal xaaj la la war sa digganteeg sa mbokk def ko même bu deful la ko war moom ndax soo defee la ko sa digganteeg suñu borom nit ñi nag ci sos rek ci la leen saytaane ma ne loolu kon du want suñu jamono gi rek yow jamono yi nag dafee da cee gën a ëpp doole dafa am benn boroom xam-xam bu bind ci benn téere di nettali benn histoire bu xorom nee na dafa am benn waay boo xam si nii da doon bëgg soxna ci benn dëkk bëgg soxna si lool dem ba am bis mu ni ah man kat damaa bëgg yabal sama samay waajur samay kilifa nu may ma soxna si bis bi mu ñëwee waxtaan ak mbokki soxna si bay dem am ko daje moom ne ko ah yow day fi nga génne lan nga fi bëgg mun ko man day soxna diw laa bëgg moom laa bëgg def soxna mu wax ko ca wax ju bona bona bona bon a lépp loo xamante ne lu yées jigéen rek mu wax ko ni ko soxna soos loo lay def waa ji jàq lool fekk bi mu daan ñëw ci dëkk bi am na dëkk bu mu daan romb suñ ko doon misaal rek jógee Badar Gueye gii romb Makassar wala miir na Jóob ñëw bu sural am mag moo xamante ne si chaque jour nag da ko daan romb waaye na ko daan rombe nag ak tey ni mu ko rombee wóote na lool lool lool lool ah mag ñi danoo am expérience mag ñi ne ko yow day gis naa sa xar kanam gi day jàq na lool lan moo ko waral mu ne ko ah man day damaa jàq ndax dafa am soxna soo xam si ni moom rek laa bëgg moom laa bëgg def soxna waaye dafa am ñenn ca waa dëkk ba ñu ma ca wax sikk soo xamante ne mënuma koo jël te soxna si bëgg naa ko lool góor gi ne ko léegi dama laa bëgg may sama doom ndax sama doom rafet la moo gën moo dàq soxna soosu te xam naa sikk si ne ñuy wax ci kooku du nekk ci moom nit ku baax la yar naa ko fan ko war a yare waa ji nangu mun ko nag bala ma la koo may nag na nga dem ca waa dëkk ba boo demee nga leen doomi baay diw day laa mujj bëgg a takk bi mu leen ko waxee waaw dëkk ba sikkal doom jooju wax ju bon ju nekk lu raw lan waxante kee nu wax ko ci soxna si ah waa ji ñëw jaaxle ni ko bàyyi diw day tooñ nga ma ndax leen ma wax sa doom ji day moo gën a garaaw lan ma wax fee mu ne ko li ci mën a am na dem rek suñu demee nga gis ko ba pare rek yaa jël sa décision mu ànd moom ñëw ci kër gi fekk fi soxnaam mu nuyu leen ak soxna si nuyu toog di waxtaan ba yàgg waa ji ne ko ana ki may bëgg may soxna mu ne ko man de musuma am doom sama kër gi daal maag sama soxna si dong moo fi nekk li ma la doon bëgg a jàngal mooy nit ñi ni mel jamono ji demal nga jël sa jabar ndax wax na la ay sikki si sama doom joo xam ne ëmb ko man musuma am doom jigéen kon li na wax fii mooy loola rek kon soxna soosee demal nga jëli ko ndax dara nekk ci nit ñi dañuy sos rek kon lépp loo bëgg rek bu la nit wax rek nga ne ah man kat laa jàppoon bàyyi naa ko ndax kii baaxul loolu la alxuraan doo xam ne in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu bala ab kàccoor andalee xibaar na nga ko ga saytu ba mu leer ndax dafa am ku ñuy wax Walid ibnu Utba bi ko yente bi yónnee ci bani mustalax ngir nu jox ko asaka yi dafa nekk nag ko ragal lool bi mu seenee waa dëkk bi ñëw di ko gàttal ndax ndawal yonte bi la mu daal di dëpp ak gileemam daw ñëw ci yonte bi ne ko ba ni bani mustalax day danu maa bëgg na rey moo tax ma daw fekk ñoom dañ ko doon kar ngir siyaare ko ngir li nga xamante ne si moo jóge ci yonte bi ba yonte bi salaatu wasalaam gëm loola ba jàpp ngir bëgg a xarit ak ñoom ci lay aaya boobu wàcce ni ko nag bu la waxatee xibaar na nga ko gëstu ba xam kon loolu lépp lu nu mat a xam la waaye nu bàyyi xel adduna bii bu baax a baax lu yàqu rek bëgg àdduna moo ko yàqal nu joxe ci benn misaal bu gàtt rek xam naa leen tëj waxtaan wi dafa am benn waaye bu mësa na dem bitim réew benn borom xam-xam bu mag bu ne wax si Ahmad Bamba si la moo koy nettali bi mu demee bitim réew liggéey ba am xaalis fekk am na soxla su rafet su bëgg na takk mu yónnee xaalis bi ci baayam ne ko damaa bëgg nga dem kër diw takkal ma diw baay bi nag mu musa gis ndaw si bi mu ñëwee ci kër gi laajte mbokki ndaw si mbokk yi ñëw mu woolu ndaw si ndaw si ñëw mu gis ndaw si rek xemeem ko ca saasa mu wax doom ji ne ko kooku day takkal naa ko sama bopp waajur nag su bëggee doom bëgg doom day ñàkk doom ñu ne ko sama papa loolu mënut a nekk mun maa bëgg kii ba jox la li nga ko war a takkee nga ñëw bëgg koo takk loolu ma duma ko nangu tey duma ko nangu ëllëg coow am ca léegi dañ dem ci borom dëkk bi mu àttenu bi ñëwee ci borom dëkk bi boroom dëkk bi ni ko demal woo ma soxna si nu woo soxna si soxna si ñëw borom dëkk bi ni leen kii alal yi borom dëkk la kon yéen ñaar ñëpp da ngeen di perte coow amaat nu ni kon nan dem ci atte siis bi mu àttenu àttekat bi ni leen dem leen ngeen woo ki xam ne mooy soxna si mu ñëw bi soxna si ñëwee àttekat bi gis ko ni leen kii day alal yi borom kuy àtte la waaye seen alal yi ñaar kon kii man maa ko yeyoo coow bari nu ne kon nan dem ci daj dëpp gi ni président de la république bi ñu ñëwee ci président président ni andi leen soxna si nu andi soxna si président ni maa leen gën a bëgg soxna si kon bàyyi leen ma takk soxna si ci boppam ni leen ñëw leen ma àtte leen nun ko yow noonu àtte ndax fi mu dem fépp a isek yow boo na mën a àtte àtte na bu yàgg mu ne ginnaaw ñëpp të na bàyyi ma àtte leen nan ko kon àtte na ñoom ñëpp ñu ko nangu leen kon nga àtte na loo àtte rek loola la mun leen dama leen di wan ginnaaw rek samp sama xel ku ma jàpp rek jàppal ni yaa may jël soxna soxna si wan leen ginnaaw rek pëccëg daw gaa yi daw topp ko ki gën a nekk xale yaakaar moom moo ko jàpp dawa dawa dawa daw boo koy bëgg a laal rek ak kàmb dox sa digganteem ak soxna si mu tàbb ci kàmb ji baay bi ñëw tàbb ci borom dëkk bi ñëw tàbb ci àttikat bi ñëw tàbb ci buur bi ñëw tàbb ci kon yaakaar naa kooku suñu laajee mooy kan dinañ wax kooku kan la mooy àdduna adduna mënoo koo dawa dawa daw ba dab xët su dañuy nax moo tax sëriñ bi di jàngale ci circul jawaahir neen Seydina Isa bi mu dajeeg moom melaw jigéen ju màggat ju ñaaw lool la ko sunu bos faa wane Seydina Isa ne ko yow de xanaa day bari nga ay borom kër ñu la takk mun ne ko bari wan naa ko lool mu ne ko foo mujj ak ñoom mu ne ko ñoom ñépp day dama leen a rey gas leen suul Seydina Isa ni kon ku gis ak kii lim def ñii ba pare nga di ko labat ak di ko bëgg tuskare ñeel na la kon war nañoo bàyyi xel loolu bu baax a baax ngir mën a jaamu sunu borom subhanahu wa taala xam si adduna du sax waay borom xam-xam bi nee na adduna bu aman lu mu lay jox mooy benn pàkk bu néew a néew mooy sa titre fossé mooy fi nga xamante ne si ne falan lay fàkk suul la fa ca foofa doo fa yàgg ab diir bu néew nga jóge fi dem fa neen kon foofa sax du sa titre fossé waaye nag da nga yàgg lool kon bu xëccoo doon am ci adduna foofa moo jëra xëccoo àdduna loo fi xëccoo lu nekk da nga koy wan ginnaaw ana buur yi ñu jiite woon ana borom alal yi ñu jiite woon ana ñu baax na ana ñi nga xamante ne am nañ àdduna ñëpp ci biir suuf te ñun ñëpp foofu la ñuy mujje kon loolu na ko jullit ñépp bàyyi xel su ko defee àdduna bañ leen a perte na ko sëñ ba jaxte waxan as ndaw la suy nax wépp faru ko nap te far bu ko nag doo jël te doo di si tus muslu naxam yi ca fexe koo nax ba jël ko def ko canuk firdawsi kon nga jaayi xott jënd gos firdawsi mooy ndaw soo xam du la nax ca ndaw si taaroo ni moom kenn du gis koo gis kon xam naa ne guddi na te xam naa am na ay laaj yoo xam ne te yaakaar naa at mu nekk mu ñëw fi xam naa nu tënk ko rek bii français la ko bind waaye sàcc sa borom kër ndax dagan na walla waa sàcc sa borom kër leen ci àttare mooy ci Fathul Makka bi yonent bi sallallahu alayhi di tuub la waa Makka ba jigéen ñi ñëw di tuub am na ca ku ñuy wax ind mooy soxna Abu Sufyaan bi leen yonent bi ne leen sàcc nag dafa xaraam na ngeen ko bàyyi mu daal di jël kàddu ni ko man de danaa sàcc waaye kenn rek laa mos sa sàcc mooy sama borom kër muy Abu Sufyaan ca la tax ma koy sàcc dama nanguwut a dundal xam nga dund dafa nekk loo xamante ne si ni farata la ci diggante jigéen ak borom këram koddaay farata la naka noonu bu feebaree nga faj ko farata la jox njabootam lu lekk farata yow yooyu yëpp nag bu ko sa jëkkër dawee bañ koo def am nga droit sàcc lu tolloog la nga xamante ne si ni moom la la war a ci wàllu woowu su ko ëppee nag araam na kon boo ko sàccee tege ko araam na soo ko sàccee yóbbu ca daayira ba araam na soo ko sàccee ndawtale ci araam na kon sàcc kooku taxut nuy wax sàcc naka noonu dem ca bitig ba jël fa junni ne ko juróom junneeg juróom téeméer laa fa jël loolu araam na loolu borom bitig yi daf leen di sama soxna si bu ñëwee lu bëgg rek jox ko ko soxna si ñëw likkitoo yoon ne la ah bu ñëwee day nee jël na fi junneeg ñaar téeméer fekk juróom la fa jël loolu lu xaraam la kon sàcc sa borom kat foofu rek la mën a dagane yaakaar naa beneen laaj bi muy luy àtteeb koo xam si borom këram da koo soxla daal mu bañ loolu moom àtte bi ñëpp xam si lu xaraam la te ku ko def malaayka yi noo ngi lay rëbb ba bët set am beneen riwaaye malaayka yi noo lay rëbb ba kere ngay nanguwaat waaye nag góor dafa war a am fulla ndax jigéen war tax xam li nga xamante ne si moom nga bëgg. soo ko wanee ci njaboot dana la ñaawal sa njaboot soo ko wanee ci waajur dana la ñaawal ci waajur kon li nga bëgg ba amoo ci sago na nga ko nëpp sa soxna kon loo bëgg bëgg bëgg taraay ci guddi gi bu ko sa soxna xam ne lii kat yow xër nga ci lool ndax bu boobaa mën na ci takk sa biir te boobaa bàkkaar man naa ñëw sa diggante ak moom dafa am benn waay bu ñuy wax joxaa soo jàngee téere bi ni wax na waa diru joxaa moom daanaka da daan jàngale waaye lu mu daan jàngale da koy jàngale ci saaru comédie day reeru lool dafa am benn bi nu bind ci téere mu wax ni joxaa dafa tëdd ba mu yàgg mu teg loxo soxna si soxna si ba ma ko ne ko sori ma joxaa jug takk mbaamam war ci mbaam mi bu doon pusurale ñu ni dem na ba mu leen ndaxar am ko dajeeg moom ni ko joxaa looy def fii mu ne ko sama soxna day moo ma wax ma sori ko ca lal ba ma ñëw ba fii soo demee ci dëkk ba nag nee ko maa ngi mën a bu doyut ma dem ba Ngaañ kon nit day am fulla muy waajur sax waroo ko wan bëgg-bëgg boo xamante ne si ni su ëllëgee mën na la caa lii ndax dafa am benn ku baax chambre bi mu tuubee fekk dafa bëggoon yaayam lool ba am ci sago da ko daan leel sax ak lekk yaay ji yéefar la yaay ji dégg nañ tuub na mu ne jërë ngeen di sonn kooku moom dana dellusiwaat murtat ndax man rek la bëgg su ma lekkatut naanum doon moom dina ñëwaat ah yaay ji nag ne ko dootuma lekk ma naan li fii murtadoo ñëwaat ci fi nga newoon mun ko konde bu soobee yàlla yaakaar naa bay bon ma waajal fa ma lay denc ndax fee ma dem kenn dootu fa dem di ñëwaat tuub naa génne naa ci lëndëm dem ci leer dootuma ñëwaat mukk ci lëndëm ci waaye daa mujj mujj rek def ci lekk kon looy bëgg lu dul yàlla bu te yàlla rek mooy ki nga xam ne soo ko bëggee dof ca bëgg ga dalay bi waaye ku dut yàlla soo ko bëggee ba dof ca bëggeel ko day mu teg lor la noo ngi lu baax guddi na te nit ñi xam naa ne danoo jëm fu sore sori ñu ngi jéglu ci kàddu yi lu ci jubut rek ñu jégalu ko te wax yàlla yàlla defal dégg ak topp jaalana allah wa iyaakum min allasina yastamiuna xawla fa yattabiuna ahsana nee na ñu ngi ko yëgal ñëpp nee na am na ay carte yu fi nekk carte barkeelu yoo xam ni lu waay man rek lu ci waay mën barkeeloo rek nga barkeeloo ko ci ndax benn classe bi dafa xat ñu bëgg koo yaatal loolu daal nee na moom lañ doon jàlle tey am na yeneen liggéey yoo xam si nag ñu ngi koy mébét di ko ni bëgg koo liggéey ak information yoo xam ne des na ko jàllale ci ay cotisation loolu dina ñëw ca kanam jërëjëf jëf jaay asalaamaaleykum mbokki jullit yi ngi nuyu yëpp di ziyaare mbokki taalibe yëpp di di ndokkeel mbokki taalibe yëpp di leen baal xaq di leen baal xaq ñoo ngi ndokkeel ñëpp ci bisu ci bés bii di bisu silaatul rahiim suñu borom subhaanahu wa tabaaraka wa taala moonu jagleel bis bu mel nii ñu ko ci sant di ko gërëm ndax bis yi bokk na ci bis yi nga xam ne bu ràññeeku la ci diine islam suñu borom jagleel na suñu bis bokk ci kon nag yal nañ ci dajeek lépp loo xam ne bis la moo na ko suñu borom danañ ci leer bu bari ñu ngi jiital ci nuyoo bi sëriñ Mountakha Mbacké sëriñ Khalifa Sall bi mu di nuyu sëriñ Bass ñu daal di ñaanal sëriñ Mountakha Khalifa général des Mourides di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool bu ànd ak wér ba naal yi mu naan ci dina ci suñu borom may ko sagoom mu yàggale ko sagoom di nuyu Euh, sëñ Abdourahim Diop xalifa sëñ Massamba Diop Sam ak mbooleem jabootu sëñ Massamba Diop Sam gépp di nuyu euh, sëriñ Moustapha Mbacke euh, xalifa sëñ Cheikh Mati lay di ko ñaanal fan wu gudd ànd wér di ko siyaare moom soxna Fatou Balla Ngom li nga xam ne moom ñun ñoo yenn ci dëkk bi si jarbaabu sëñ Sidi Moukhtar waajuram bokk sëñ Sidi Moukhtar Ndiaye Baye mu ñëw yelloo ñu bés bi ngir ko mun bokk rek dundal mu bokk rek yàlla ko suñu borom may wér may ko tal ak fekke borom fayal ko ndax wax dëgg yàlla loolu sedd na xol lool bàyyi nañu tey yëpp ak Tuubaa yi mu soree dikk ànd ak ñun bés bi ngir jokk mbokk jox na ko suñu borom fayal mbokk xam ngeen ni euh, moom ci dëkk bi la bokk ndax Euh, ma lay tabara mi taw ak jaaram sañ dëkk bi moo jur Ousseynou mi mooñ ñi soxna Mati lay bi maamam kon nag ci doomi dëkk bi la bokk kon ñëw na kër maamam bu ñaan mu daje cee ngërëm suñu borom waaye suñu borom dafa ko ci lu kaw njort mu gis fi lépp lu ko neex te bañ fa gis dara lu ko naqare te mu ñëw fi at yu bari ànd ko ñun ñu koy sant bu baax di ko gërëm wax dëgg yàlla suñu xol sedd moom ba ñu ngi koy sant ci gërëm di sant mboolem autorités yi fi teew muy kilifa diine muy sëriñ Cheikhouna Diop Ndiaye sëñ Amdi Seck Rijal ñu ngi koy siyaare ak sëñ Mamadou Kër Mor Thiam ñu ngi koy siyaare rek ak kilifa yi nga xam ne teew nañ fi yëpp ñu ngi leen di siyaare ñaan suñu borom mu mel ni mbokk yi na nañ fi comme ni ñu ko daa defee defewaat ko dundal nañ bis ba xëy nañ jàng fi alxuraan. wàcce bi kaamil yu bari def fi astaxfirullah jéggul suñu borom tudd yàlla tudd yu bari ngir yi nga xam ne jiitu ji nañ di ñaan suñu borom nangu di ñaan yëpp mu fekk leen fan nekk suñu leen te ñaan ñi ñaan suñu borom yàggal leen fi ñu ànd ak wér koy di yàgg leen di ñaanal di nuyu borom bi mu maam Serigne Lay waaye di ko nuyu moom magi nag di leen sant di ñaan suñu borom yàgg leen fi ndax seen taxawaay rafet na lool ñu ngi jiital gone yi di leen ñaanal di leen teg ci yoon ngir bés bi gën a jàpp waaye mu gën a ànd gën a nekk benn di nuyu soxna yi nga xam ne eh, nekk nañ ci dëkk bi muy mag ñi soxna yi mag yi di leen nuyu ñoom ñëpp itam seen taxawaay rafet na ñun ñëpp ñu ngi jàpp ci liggéey bi di jàppale seetu rek ñu guddee bëccëg ngir mu taxaw gën gën a tege ci yoon di nuyu soxna yi ndaw yi waaye di nuyu suñu rakk yi xale yu góor yi waaye di nuyu mboolem génération yëpp rek di wax ni lii mooy doole Seen Roy ñu àndandoo muy mag ñeeg gone ñëpp ñu nekk benn Seen Roy ma xam ngeen bi mu sosoo léegi mu yàgg jërë na waaye leen rek moo tax mu sos ko mooy dundal mbokk mi Thank you. xam ngeen ne bi mu sosoo mbokk bi yàgg na xam ngeen ne bi mbokk ñu wàññi coow li ngeen ni seetraay bi mu sosoo yàgg na waaye dara taxul nu sos ko lu dundal mbokk gi ak ànd booloo nekk benn ànd xàccandoo di dóorandoo képp koo xam ne dangaa cosaanoo ci busura nga mën a jox siwaat ci busura dundal si seen mbokk waaye dundal génération bi nga àndal ngeen ci def ak lu jot ngeen mën ko daje pour ngeen xamante mën a saafonte te yaakaar naa loolu ñu ngi ko réussir ndax boo xoolee bépp génération bu mos a jaar busura rek desiwaat na busura waaye daje na fekk ñi nga xam ne ñoom la génération woon loolu rek kenn amatu fayam kon nag mboolem koo xam ne dëkk nga busura war ngaa bàyyi xel seeturaay ci wàllu fànn yëpp nag muy teg bi ak dox ci jëmal mu jëm kanam ak wax lu baax ndax seeturañ kat moom la nawee busura ndax mooy for busura ndax bari nañu jàpp ni busura mën noo ànd nekk benn dànk di xàccandoo di doorandoo kon nag suñu borom subhanahu wa taala buñ dimbalee ban man koo am ci ndimbal suñu borom baaxu suñu borom nan ko sant yàlla te dundal ko bu baax li ko mën a dundal nag ñëpp xam nañ ko mooy silatu rahim dafa am ay normes yoo xam ne ci lañ ko teg muy aw yoon woo xam ne ci lay ndax lépp loo mutu yoon mën naa bañ a sore yoon wi mooy lan mooy dañ koo sos wutal ko ay kuréel fépp ci Sénégal foo xam ne nit nekk dafa bokk seetureen rek am nga koo mën a joxe ni nga fay joxe mooy lan su fekkee dañoo woote réunion nga dem wuy ji lan la ni réunion mooy waxtaane ko bokk ga dundal ko bu loolu weesoo mooy teg yi teg lan góor douze mille la jigéen trois mille weer 1000 francs bu dee góor a bu dee jigéen ak weer juróom fukk loolu yomb na te loolu soo ko defee di nga dundal salaatu rahim waaye di dundal mbokk mi muy def at mu jot ñu jàpp ko ñëw fii ci Boussoro muy tànqare ba ci suba sa muy gis boo xam ne suñu borom moo nu ko jagleel ñun rek ñoo ko am kon nag ñu gën koo fonk bu baax te gën cee jàpp te itam ñu jàpp ci social bi mbokk yi ñu ngi leen dina xamal ne social bi lu am solo la ndax bu fekkee Cité Lorraine ab dëkk la social bi mooy yoon ndax ay mbokk surtout ay jullit bu ñu dajee li ëpp importance ci ndaje moom mooy nuy dimbalante ci seen biir ba kenn bëtam du ca xong ndax Cité Lorraine loolu rek mooy fooram moo ko mën a jàllale fu ne tey li ko may doole ci la bokk te ci ñëwee sax mën naa ne ci la mooy social bi social bi nag boo kenn xeeb bu kenn wax ne li ma yor dafa néew ba tax doo ko dugal social bi bu kenn wax li ma yor dafa bari ba tax doo ko dugal social bi ndax social bañ na ko ba ci sutura lañ koy defee lépp loo joxe dinañ wax sa tur ak si na mais la ñuy li nga am li nga joxe ci sutura lañ koy defee tam képp koo xam ne ñu nga koy lijjanti social bi tam ci sutura lañ koy doxalee ndax turam du feeñ mën ngaa joxe social ba ren ba déwén doo xam kañ nga ko joxeel wala doo xam sax kañ nga ko joxeel ki moom ñi ko ñi ko dirigé rek di ko organisé ñoo ñoo xam social bi kan lan koy jox di sant sëriñ Sonia bu lay mi ko jiite ak sëriñ Xaadim lay mi nga xam ne mi ngi def liggéey bu am am solo di ko ñaanal suñu borom taxaw leen ndax liggéey bi am na solo lool tey metti na ndax sëriñ Xaadim boo déggee muy wax social rek xamal ne day ñëw ci bureau ba dafay dàggi boppam bu baax ndax dafay ñeewante dikk ci nit ñi di leen laajub xaalis lu ko tiis la mais su a mën a dellusiwaat ci seetu roy ma bi xam ne ni saa yu koy laaj métti ko ba sonn door a daggi boppam door a dikk nag yaakaaroon ni ñu laaj ko ndax du lu mën a ñàkk ndax farata ko def moom xam ne social mënut a ñàkk kon nag ku ko déggati na nga ko bàyyi xel te di ci def soo ñàkk bu kenn xeeb lu waaye am rek nga def ko ci ndax social bi loolu rek moo koy dundal su ngeen déggatee social lu ngeen mën di jàpp rek ngeen ko bàyyi loo am rek nga def ko ci ndax loolu moom koy dimbali moom mi koy am na ci ñeewante trop pour jàkkaaroon nit ñi di leen na ci moom lool mais nag dee leen bàyyi xel ne saa la na ko ñëpp bàyyi xel sociale bi mag mu mel ni def na nam daa def mooy at mi génn na ci juróom-ñetti yoon pour euh, def ndimbal te loolu nag lu am solo la néew na sax nu àgg ci som boobu ci at yi nu weesu ndax ren def na social social bi def na lan un million euh, un million quatre-vingt mille joxe nañ ko social ren ci juróom-ñetti yoon kon sociale bi jàmbaar la wax dëgg yàlla di di ñaan rek na ci ñëpp jàpp ndax social bi loolu rek moo ko mën a jëmee kanam moom bu ci ñëpp jàppee ndax créé woon nañ fi ay teg ndax bëgg social bi am doole mais teg yi ñu bari respecté nu ko ñu néew ñooy teg wax nañ ni weeru jot lu waaye mën na ko dugal loolu taxul mu dox kon li man mooy saa yu amee social rek suñu xaarim day génn ñëw ci groupe bi wax ko nit ñi ñëpp jàpp ci ndax social bi kat mooy doole groupe bi ñu ngi siyaare ñëpp nag den balaax te den balaax den wax ne yëpp dafa guddi waaye war nañ fay wax lu lii ndax jitaay moo guddi moo tax kon li ëpp rek nañ ko tënk ci social bi waaye di soññiwaat nit ñëpp di soññal sama bopp ci seet roye ndax mooy fooru busura kat busura kat boo gisee at yi ni mu soppi ko ak ni mu changé nga xam ni social bi am na ci eh, silat roye am na doxin moom ci doxu rafet mu mel ni eh, tey liñ ci cité mooy école bi ndax at yi li bi di mujj taxaw mooy école bi école bi tam gaa yi def nañ ci effort bu am solo ndax biñ ko commencé woote biñ ko dajalee askan wi liñ joxe toll na ci deux millions cinq cent soixante-treize loolu la gaa jot na dajale mais bi ñu ko liggéeyee ba pare eh, mi ngi mat un un million trois millions neuf cent vingt quatre mille cinquante francs kon kon am na différence. social bi social bi moom ñun ñëpp dañ coo war a toppee aw sas ndax social aw sas moo koy demal social laaj demalu ko ndax ki koy laaj day metti ci moom lool. day métti ci moom lool nu nekk lay def ngir bëgg koo laaj ndax laaj dafa métti ndax laaj boo koy def foog nga cokkas ko kon ñun nañ ci bi aw sas boo xamante ni kenn ku ne da ngay xam ni kenn ku ne da ngay ni daa am lu la ca war ndax mbir la moo xamante ni ñaanuñu ko yàlla waaye fépp la yéeneew kon kenn ku ne da nga cee war a dugal sa loxo kon loolu moom lañ bëggoon a gën a fàttaliwaat rek di dalal kilifa yu baax yi nga xamante ne teew nañ fi des autorités ku mel ni Ousseynou ak ñi mu àndal ñoo ngi koy dalal jàmm di ko wax ni ko ñëw na ci dëkkam. ñoo ngi koy dalal jàmm daal président dina ñëw saafonte moom léegi di wax ni doolee cant doolee santaat yàlla bu baax rek ci ànd bi ñu ànd ak ni mu rafete man nag damay doolee sant bu baax a baax ci wet gi ma féete muy Mariana di sant ñëpp di leen gërëm képp ku ma tudd sutura nga xam ni soo limee da ngay doo matal waaye nag dinaa am ñu ma ci seq tuuti ñoo xamante ni mel na ni amoon naay coono yu bëri ci dem dikk bi waaye ñoom ñoo ko teggil ku ci mel ni sëñ Fallou lay Fallou lay ak Baara ak sëñ ma jama mee wax dëgg yàlla jéego yi ma daan def ak oto yi ma daan wut lépp ñoom ko teggil te ay ndaw lañu xam ni busor lañ dëkk dëkk gi ñu fi dëkk dañoo am wàll ci liggéey bi ba tax na ñoom ñëpp kenn ko ne ñëw dugal sa loxo loolu nag mooy wareef boo dëkkee ci dëkk ñu say woote dara nga nekk Touba féete madiyaana da nga caa war a dugal sa loxo bu baax ba ñu xam ne dugal ko ca ndax loolu mooy dëgg ndax loolu mooy dundal bokk gi ak bokk moom lu ñu woote rek dama la si kon maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm bi ñaanal it suñu waajur bi nga xam te ne moom lañ defee réunion këram muy Baye musaa suñu borom dool ay leeram yokk yërmande ci moom fi mu leen féete woon njaboot gi suñu boroom féete leen fa ci dërëje Seydina Mouhamed ndax boo ko dëgg yàlla dalal nañu lépp lu koy xewal dañ ko fay jox dañ ci laaj dara kon ñoo ngi koy sant bu baax a baax suñu borom doole seen wërsëg kàtt na leen may leen fan bu gudd lool ñu yàgg a ñaanal seen waajur kon ñoo ngi sant bu baax tey gërëm salaamaaleykum wa rahmatullah aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki dëkkandoo yi kenn ku nekk ñu ngi koy nuyu sa tur ak ci sa sant ah di jiital ci nuyoo bi nag ah, ak sant googu noonu xalifa général bu murit muy Serigne Mountakha Bachir Mbacké te di ko ñaanal yàlla yàlla guddal aw fanam ci war Seydina Mohamed bi ci tegit sëriñ Abdourahim Diop moom mi nga xam si ni moom mooy xalifa sëriñ Massamba Diop Sam da koy ñaanal moom tamit yàlla na yàlla guddal aw fanam te yan mi nga xam si ni suñ borom yan na ko yàlla na ko yàlla oyofalal ci barke Seydina Mohamed ah di nuyu tamit sëriñ Bassirou Diop xalifa sëriñ Massam sëriñ Mat Diop moom tamit ñu ngi koy nuyu bu baax te di ko siyaar kon bu ko defee xam naa ne dañuy continuer kaddu yi mu mel ni ci biir waxtaan bi dafa am kilifa goo xam si ne dañoo dab ci biir waxtaan bi muy Serigne Bassirou Diop alxuraan moom itam ñu ngi koy saara bu baax Diop te di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal aw fanaam te wéral ko bu baax ndax wax yàlla fanam mu gudd ak wéram yaakaar naa njariñul kese la fii ci bu suurale kon ñu ngi koy nuyu bu baax te di ko saar te di ko dalal jàmm li wax suñu sëriñ ñu ngi lay ñaanal bu baax ginnaaw bu ñu nuyoo euh, xalifa yi nag ziar leen ñaanal leen yàlla bu del seen fan ah dañuy jël nuyoo dëkku dëkk bii di Bichri Leye teg ko ci kilifa bi nga xam si seen tey jii moom la ko yàlla dénk muy suñu bàyyi Serif Leye di ko ñaanal yàlla yan bi nga xam si ni moom la ko yàlla yan yal na yàlla oyofal yan boobu ci barke borom Tuubaa di delluwaat nag di ñaanal suñu waajur bi nga xam si ni heure bi daaw ñu nag moom ñoo fi nekk ndoowan te tey jii yàlla dogal maanaam mu wan na ginnaaw ñoo ngi koy ñaanal yàlla yàlla suufu Tuubaa oyof ci kawam yàlla na ko yàlla jéggal ay bàkkaaram yàlla na ko yàlla xare àjjana yi si ci barke Seydina Mohamed moom ak suñu baay Cheikh Boussa suñu baay Ndaam ak mboolem jullit ñi nga xam si nii fekk nañ leen ah ginnaaw bu loolu jàllee nag dañuy santaat yàlla suñu borom bu baax ndax li tax ñuy sant yàlla mooy yàlla moom moo ñu may daaw ñu woote waan ren jii tamit ñu woote waat fekke ko kon boog fekke gi nga xam si maanaam fekke nañ ko suñ borom na soob kon ñu ngi ciy santaat yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla yàlla nañ ko yàgg a fekke te gën a rafet aw fekkin ah kenn ku nekk nag xam na li nga xam si ni maanaam moom moo waral tey jii mbooloo mi daje fii nii li ko waral maanaam moom mooy jokk ak bokk te jokk bokk yaakaar naa lii maanaam moo ci jiitu mbokk yoo xam si ni dañoo tànn bis boo xam si ni ca la ñuy dajee te nekkul bis boo xam si ni maanaam bisum naqar la loolu lu jara sant yàlla la Silatu Rahim nag kenn ku nekk xam ne ñu ngi ko créé en 2007 depuis ñu ko créé ba léegi boobaa léegi am na 17 ans boobaa léegi yàlla ngi ñuy dimbali wax digàll macha allah ñu ngi ciy gis ay njëriñ ah kon boog tey jii day jaadu ñu taxaw maanaam xool ba xam ndax Silatu Rahim bañ avant ñu koy créé 2007 ak biñ ko créé ba ba léegi mu am 17 ans 2007 Siratu Rahim bi muy ñëw fan la fekkan Boussirou Laye ak Boussirou Laye ginnaaw bi nga xam si maanaam sos nañ Siratu Rahim fan la Boussirou Laye nekk loolu yaakaar naa kenn ku nekk ci ñun rek war nga cee def am njàngat bu baax a baax ndax yaakaar naa avant Siratu Rahim di am rek Boussirou amoon na genn xar kanam bu bokkul ak xar kanam gi nga xam si nii moom la am tey jii nii kon bu ñu yàlla dimbalee tànnal ñu maanaam bis bu mel noonu te bañ koy laaj ñu dem ba ci sëñ Bassirou Diop xalifa moom mu tànnal ñu ko wax dëgg yàlla macha allah suñu borom barkeelal ko kon nañ ko santewaat yàlla bu baax a baax loolu nag maanaam day aaje kenn ko nekk ci ñun nga jàpp ci seex nag moom la yàlla dogal maanaam mu nekk ci kanam di soññee waaye ne leen leer ni yéen ñëpp ay président ngeen yéen ñëpp ay vice président ngeen yéen ñëpp ay porte-parole ngeen ndax si loterie bu ñu koy taxawal lu gën a avancé Bichri moom moo tax ñuy taxawal si loterie. kéem ni ma ko waxee léegi nii rek balaa si loterie doon ñëw. ba première woote gi nga xam si moom lañu njëkk a wootee ba ñuy jàng ay kaamil dañoo takk sareet ko dem ba kokki jëlee fa ay jàngkat ñu ñëw wàcceel ñu ay kaamil loolu noona yàlla jëlee na ko fi ndax suñu borom dimbali nañu ba sëñ Bassirou Diop alxuraan mi ngi nii def na fi daaraam am na ay dongo yi nekk ci biir daara ji am na tamit ay xale yoo xam si ne jàng nañ ci daara ji ci dëkk bii ba wàcc ba mën a wàcc ay kaamil tey jii bu ñu soxlaa wàcce kaamil du ñu dem fenn fa jëri ji ay nit ñu ñu koy wàcceel ay nit moom ñoom ñooy jóge ci àll ba ñëw fii ni ci busura di fi jël si ay donga ñu leen di wàcc ay kaamil loolu nag bu amee dañ koy sant jëmm jii nii loolu moo tax si la tarayen jóg dañ bëgg a def busura dëkk boo xam si nii duutul soxla lenn kenn lépp suñuy bopp lañ soxla lu ñu soxla rek ñun ñoo koy amal suñu bopp suñu biir loolu maanaam maanaam moom mooy euh, philosophie si la tarayen ci loolu lay dox loolu moo tax ñu sos ko bi loolu paree li ñu njëkk def maanaam moom mooy miir armeel yi tey kenn ku nekk xam na ni armeel yi bi ñu fiy ñëw dañ koo fekk mu nekk ab àll ñu volontaire wu jaayante ba miir armeel yi waaw ginnaaw bi loolu jàllee tey jii nii yàlla dimbali nañu xale yi dañ daan jóge fii di dem ba Makassar di jàngi loolee noonu Silatou Rahimi xeex na ko ba mu jeex ba xale yi duutuñu jóge bu suda naan dañuy dox di dem Makassar di jàngi diggante bi lu nekk mën na leen fee dab loola jóge na fi naka lañ def mooy dañu waxtaan taxawal benn école boo xam si ne ñu ngi ko tuddee institut al azhar waaw ñu def ci liggéey bu rëy rëy nag ñu ngi ciy sant suñu benn mag li olof di wax maanaam mag mat naa bàyyi ci réew muy ku ñuy wax Cheikh Badar Sele bi ñu ko lancé dem ci bureau bi moom moo xam ne ne kat yéen seen li ngeen ni ngeen di doxee nii 5000 francs yi ak 10 000 yi nii li ngeen bëgg nii loolu mënu ko nan la ñuy def mooy da yëkkati aw sas diw sàngam da ngay joxe lii diw sàngam da ngay joxe lii loolu moo tax liggéey bi suñu borom dimbalu nu ba ñu ko bëggee ñu amee ko noonu kon nag loolu noonu dañuy wax maanaam grâce à Sylvia Daraim moo tax tey jii nii Goussouta am école al azhar am jumaa joo xam si ni macha allah donte la liggéeyuñ ko ci kees Sylvia Daraim tamit mat maanaam jëmm ji nga xam si moom moo ko fi liggéey ci dëkk bi la juddoo yaroo fi ah, gis ni muy doxee mu xam ne kat Goussouta gii nii kat wax dëgg yàlla nag comme yàlla dogal na fi la juddoo yaroo fi rek na am na loo ko war loo xam war na ko fay kon loolu ñu ngi ko ci sant bu baax kon loolu lépp maanaam mën nañu xarkanam bi nga xam si ni tey Bichra am na ko su ko amee ginnaaw yàlla ak Sylvain Dorayem moom moo tax mu am Sylvain Dorayem maanaam moo tax mu am xarkanam googu noonu ren nag yaakaar naa su fekkee nii lu ñu joxee ab trophée maanaam li ñuy wax coupe tey xale yi laa koy jox maanaam muy sërës bi comme xale yi gën a ndaw ay classe Baye Thierno moom Baye Góor ak damay lim rek ay ñoom Baye Naar ak Kosor googu ndax yaakaar naa xel man xel dal na ci la doreem waaye xel nag gën na see dalati ci suñu atum 2024 bi ñu nekk nii ndax ren jii li ma gis ci ay xale yoo xam si ne dañu volonté wu joxe seen i cotisation ba si la doreem taxawee ba léegi may laaj ay teg mosuma ko gis man Cheikh waaw tey loolu yaakaar naa ab euh, dañ ko war a sant ndax avancement la liggéey nañ liggéey bu rëy rëy rëy ñoom xale yi ci cotisation ren jii nii waaw ñu leen di xamal ni leen loolee noonu ne bu ñu ko bàyyi da leen a war ndax dëkk bi suñuy maam ñoom ñoo fi nekk nekk fa nekkin wañ fa war nañ fa war a nekkee suñu bàyyi ñëwit maanaam nekk fi nañ fa war a nekkee ba tey jii ñu yar nu yarin woo xam si tey fu fu ñu génn dem fu nekk rek dañ xam ne doomu Bichri lay ñëw na te lan lañ ko xamee mooy maanaam silwise ga yar ba ak tekkin ba doomu Bichri doo gis mu dem fenn di yor watif goo xam si ni maanaam bokkul ak watif goo xam moom la war a yor wala muy jëfandikoo lenn loo xam si ni mën na ko taqaleeg ak sagoom kon boog loolu noonu lu jara sant yàlla la xam naa bu ñu fu jógee fas naa yéene waxtaan ak sama waa bureau ñu liggéey ci beneen liggéey boo xam si ni bokkul ak ni ñu daan doxee yéene bi ma am mooy wut benn commission boo xam si ni ay mag ñoom ñooy nekk ci biir commission bi ñu fo maam ñu formé ko kenn ñaanu yàlla yëngu-yëngu di am waaye kenn ku nekk xam na ni ay nit fu ñu dëkkee rek du ñàkk yenn saa yi ay jaxasoo am ak affaire yu mel noonu léegi nag commission booba bu ci waxtaanee ak ñi su loolu abatee ñoom ñu jóg ñëw dox ci ay tànk jàmm ba loolu noona ba ñu yegg fenn fii ndax yaakaar naa Busuda fi mu toll nii rafetut jëkkut ngay dégg yenn yi ci biir Busuda ndax loolu luy tilimalu image bu Busuda la te image bu Busuda dañ ko war a raxas ba mu set wécci ndax maanaam fii nii jaay nañ ko ba nga xam si nii foo ne Busuda laa dëkk rek dañ lay xoolaat comme ni ñu ko waxee ci sur le bi bañ ko fiy sos en 2007 booba kenn defu ko fi woon ñun ñoo ko fa def yàlla dimbali nañu nag ba léegi ñu bari ñu ñu ci rey kon loolu dañ koy sant suñu borom bu baax a baax xam naa ne li nga xam si ni moo nekk ci suñu xol ñu am yéene yebbe ko fii wax ko ci solatere yi xajul fii ak maanaam bët di seet ndax buñ ko fay di waxee fi la ñuy fanaan kon daal may ñaan képp koo xam si ni yaa ngi dëkk Boussoura tey jii nii nga nekk ci dëkk bi di fi yeewoo ak foo mën a nekk nga sasoo ci Boussoura rek xamal li ci liggéey bi ñuy liggéey ngir lu jëmale Boussoura lay kanam ci nga bokk bàyyiwuñ ci kenn kon loolu na ci ñëpp gën a góor góorgóorlu di ñaan yàlla yàlla nu yàlla defal euh, liggéey bi nga xam moom lañuy liggéey niñ ko bëggee ñu man ko amee noonu xam naa ni dafa xaw a guddi te mbokk yi dañoo bëgg delluwaat fa nga xam si ni euh, fa lañ dëggan kon dañuy gàttal kàddu yi kon bu ko defee rek mu mel ni ginnaaw bi ñu wootee ah bi mbokk yi nga xam si ni maanaam ñoom ñooy mbokk deret yi ñëw wuy si dafa am ay mbokki dëkkandoo yoo xam si dañoo ñëw bokk ak ñun liggéey bi kon mbokk day jaatu ñoom maanaam ñu sant leen gërëm leen ci seen taxawaay bu rafet bi nga xam si nii taxaw nañ ko ci suñu bis bii nii euh, sëriñ ma ne ko bu boobaa koy day jekk ñu sant leen gërëm ko ci suñu bis bii nii waa kar sëriñ Souleymane Diop yónnee nañ fi délégation ki jiite délégation bi moom mooy sëriñ Xaarim Diop di doom ci sëriñ Moutada Diop ak suñu yaay Fandaak am ñu gën koo xam ci Fandaakum Baye Cheikh Diop ànd ak Cheikh Lay ma mbaay Fallou Lay ak sama yaay May Diop ñooñu moom macha allah leen a xam ñoom ñoo fi teewal waa kër maam Souleymane Diop waa Makassar ñoom tamit yónnee nañ fi seen délégation sëñ Gora Sarr moom moo jiite délégation bi ñoom itam ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ku ci mel ni Serigne Cheikh Mbaye ca Goudiane moom it wax dëgg gis liggéey bi ni muy doxee macha allah mu neexoo yónnee na fi ay tiraanga yu am solo jox ko ko ci loxol seen bi mu andi fii ci dëkk bi ñu jëriñoo ko kon loolu ñu ngi ko ciy sant bu baax du ko ci gërëm ah ku ci mel ni tamit suñu benn maam. dëkk ca ngaay mexee ñu koy wax maam ay da lay moom it wax dëgg yàlla andi na fi loolu ñuy xiwloo lu mel ni ay saaru biñeek xam ko comme comme moom dama ko yeb naa ko bi biñe ndax sama maam la andi na fi ay teraanga yu am solo moom itam ñu ngi koy sant baax di ko gërëm ak benn ak kenn ci ay doomam ñu koy wax maam Anta Ñang dëkk ca dakaar moom it am na loo xam si ni jaayante na ko ci bis bi moom itam ñu ngi ko ci santaat bu baax a baax te di ci woo mbooloo mi nga xam si ni ñoo dëkk busura bis bi maanaam bu ñëwatee kenn ku nekk loo mën a jaayante ngir bis ba gën a jëm kanam rek loola na nga ko def ndax maanaam actuellement nii fi mu toll nii liggéey bi fi mu toll pour cotisation yi man ko matalee dana nekk loo xam si ne lu jafe la waaye bu ci kenn jàppee rek ak na nga ci a jàppee yaakaar dina gën a jëmale eh, kanam dëkk bi amit tamit keneen koo xam si ni doomu dëkk bi la muy sama ndijaay ñu koy wax alhaji bu see jéey mooy wax dëggal macha allah andi na fi lu am solo loo xam si ne ay matériel la yóbbu naa ko ci jigéen ñi gis nañ ko jigéen ñi dem dañ ko mën a jariñam moom itam ñu ngi koy sant bu baax di sant ko ci mel ni Abdoulahat Lay ba encore ñu koy wooye Abdoulahat Bamba ay at a ngi nii lépp lu jëm ci wàllum ceeb ak diwlin moom moo ko gàlloo bokkoo kenn liñ fiy xiwloo ci ceeb ak diwlin bi lépp moom moo koy def moom itam ñu ngi koy sant bu baax te di ko gërëm tey delluwaat tamit di woowaat yeneen mbokk yi nga xam si ni yàlla man noonu leen ko ginnaaw bu ñu joxee li nga xam si ni moo leen war te obligation bi moom 12000 la képp koo xam si ni bokk nga ci rek 12000 francs moom nga war a joxe soo manee lu ko ëpp dem def ko tamit kooku dem day nekk loo xam si ni loo gën a baax gisan tamit ku ñu wax euh, Mbàkke lay maakam maam ummi ñu ngi koy sant te di ko gërëm wax dëgg yàlla amuñu fayam dañ koy ñaanal moom ak waa daayira bi nga xam si ni moom la àndal jóge Dakar daayira bi ngeen gis fii ñuy jàng daayira ñu Mbàkke lay ca marché cinq la mooy wax di yàlla mu ciy liggéey liggéey bu rëy kenn ku nekk yéen gis na ni bis bi gën nañ ko jëmbalaat kon moom itam ñu ngi koy santaat bu baax di ko di ko gërëm ah di sant kenn ci koo xam si ne wax dëgg yàlla moom it daa bokk ci dëkk bi léppam di dëkk bi ndax borom këram ba muy taxawal fii nii jàkka yaakaar naa booba jàkkay seng yi ak jàkk jàkkay xat yi bari na ci réew mi muy soxna Amy Sarr moom it mu liggéey liggéey bu rafet waaw liggéey bu rafet rafet ànd ci ak soxna Yacine Sall mais nga xam si ne yàlla dafa dogal maanaam moom mu nekk sama xarit bëggal ma boppam fexe nañ maanaam ba dajale ñoom lañu am jënd ci ay bool ak ay leneen andi ko ngir dëkk bii nii léegi loola noonee ñu ngi ciy woo bépp soxna boo xam si ne yaa ngi ci dëkk bii na ngeen ci góorgóorlu ba mu bu buñ fa yàlla bàyyi jàmm bu ñëwaat li ñu andi woon nañ andiwaat lu gën a bari loolu noonu loolu nag maanaam takku rek moom moo ko war a wax dëgg yàlla sonn na ci mu seetaay benn yoon moom ak soxna Yacine ñu ngi leen di sant baax te di leen gërëm sama nijaay Fallou Lay ñu koy wax Fallou Fadi Gueye ca Touba mooy wax dëgg yàlla te bindoon ko ci communiqué y yónnee na fi ab leetaram ñu koy sant baax tamit di ko gërëm soxna Faati Balla Mbacke yow it ngi lay siyaar bu baax te di wax ne la yow itam gis nañ sa teewaay ci dëkk bi Serigne Mbaye Ndiaye moom mi nga xam si ne maanaam moom mooy commission moo yore commission organisation bi lépp lu jëm ci bis bi rek moom moo ko yore baaseeg lépp moom ñu ngi koy sant ak équipe bi nga xam si ni moom la àndal Mour Fatim sama rakk tege ja nekk ci wet ga ku nekk gis nañ wax dëgg yàlla macha allah ren moom lu jëm ci wàllum dënale bi suñu borom dimbali nañu ba maîtriser nañ ko nañ ko war a maîtriser kon loolu bu amee rek Mbaye Ndiaye lañ ciy sant ak bi nga xam si moom la àndal di liggéey tey ñaan yàlla yàlla nañ ko mën a gën a maîtriser ba képp ko fi ñëw rek mën a kontaan bu loolu dara dem ñu ngi sant tamit soxna Fatou Ndoye moom mi nga xam si maanaam moom moo yoree moo ñu teewal fii ci Boussouréleye yore fi sama kàddu lu may wax lu nekk ci moom laa koy jaarale mu jot li ko jigéen ñi moom tam ñu ngi koy sant baax te di ko gërëm noonu tam ba encore tam noonu la ñuy sant tamit mu fa dem ba sama rakk ndax wax dëgg yàlla xale yi taxaw na ci soññi leen cotisation yi mel ñëpp waaw góor a lay ñu gëm koo xam ci góor a Fatou Kébé moom wax dëgg yàlla amuñu fayam ndax moo fi nekk nekk suñuy tànk nekk suñuy bët lépp loo xam si ñu ngi koy defaloo ci dëkk bi rek moom lañ koy defaloo te du ni maanaam yéen ñii kat yi nga may def lii du ma seen morom ndax man na ne ni kat tey seen papa laa kon am na loo xam ne du ko nangu mais ku nekk ci dëkk bi ko nekk rek mi ngi lay jëriñ loo soxla rek lu nekk mag loo koy defal kon bàyyi góor ñu ngi koy sant baax baax te di ko gërëm di sant it Serigne Samba Ndiaye moom mi nga xam si maanaam moom moo ñu teewal fële ca Touba Ndamatou ak waa Ndamatou bu àndal jëpp Serigne Samba ngi lay sant bu baax te di la gërëm sëriñ Mor Ndiaye yow mi nga xam si ne yaa nekk Touba Madiyana yow ñu ngi lay sant bu baax wax dëgg yàlla yow ak waa soxna May lay ak sëriñ Fallou lay moom Mbaye Mbaye lay ñu ngi leen sant bu baax ci liggéey bu rafet bi nga xam si yéen a ngi koy ku nekk xam na ni jot amut yow da ngay liggéey da nga yor sa place di ñaw Fall dafa yor place am tamit di jaay ngeen di dagg seen yitte di dem di def ay réunion ak di ci sonn loolu noonu ñu ngi leen ci sant tamit bu baax te di leen ci gërëm bu baax ah sëriñ Talla ànd taxaw suñ gox moom tamit yónnoon na fii Ah, Thiara Sarr moom it wax di yàlla jot nañ eh, ab leetaram ñu ngi koy sant bu baax te di ko gërëm si la moom mi nga xam si moom moo yoree tamit maire bi actuellement nii ñu koy ñaanal moom it yan bi nga xam si moom la ko suñu borom yan yal na ko yàlla oyofal ba yéene ji mu am ci gox bi mu mën koo mottali ñu ngi koy fàttali ni nag Boussouda da di dëkk boo xam si ni ñun lu mu mën a am rek Boussouda moo ko moo ñu ko gënal kon boog ñu ngi fàttali lu jëm suñu wàllum courant bi mën a a gaaw rek daf ñuy gënal ndax it maanaam defe naa jékkut rëfatut dëkk yi nga xam si moomu ñu wër yëpp di taal courant bu tabaski ñëwee ñu am seen i frigo saari mbenn bor yi di ci mën ak ak mëti di ci mën a def seen i ndawal ñun ñuy wut di jënd ay glace loolu metti nañu kon ñu ngi koy ñaan mu taxawal ñu lu jëm suñu wàllum courant bi mu gën a gaawee rek gën a baax waaw euh, ngeen jàllo tamit moom it wax di yàlla ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm moom itamit yéenoon na fii délégation bi si loolu tamit mbaro ñoom tamit wax di yàlla jot nañ seen ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm Ah, Sam Fall ndimbu joom it moom itam jot na am lettre ñu ngi koy sant bu baax te di ko gërëm waa Ndombil Jaxate ñoom it yónnee nañ fi ci seen président maam njiit président Serigne Nato ko léegi moom nga xam ne moom moom daa tëddee njaaxanaay ndax daa dëkk busura ba pare tamit bokkaat dem nekk Ndombil moom ñaar jëpp ko moom fi doon di su ko busura soxlee rek yéen waa Ndombil da ngeen ñàkk ba ma ngeen xam ko moom naata ko moom suñum naatu ko ko naata ko moom suñum naatu ko la saa bu ñu ko soxlaa rek da ngeen di ah, da ngeen di ñàkk Serigne am yow itam ñu ngi lay mooy dem jot nañu am leetar rek ñu ngi koy siyaar bu baax te gën a sàkkuwaat moom ci baax ñaan ñu gis taxawaay bi chaque année saa koy def rek dina ñëw ànd ak ñun bis bi wax dëgg yàlla loolu te amuñu ak fenn Serigne Samba Kane moom mi nga xam si ne gis ngeen nii lépp lu ñuy soññee lu jëm ci group bi rek moom ngeen gis maanaam mu koy soññee loolu muy def nag maanaam defu ko ci daa am jot wala mu koy def ci ak coobereem lu mu ciy def rek man maa koy sant ñoo ko defal ma nàngam mu koy def ndax xaj na am na loo xam ci lenn lu nekk daa am ku ko man loolu moo tax ma di ko sant sëñ Samba maa ngi lay sant baax di la gërëm itam ci sa taxawaal sëriñ Ousseynou Fall moom tamit teew na ci jotaay bi ñu ngi sant bu baax jot nañ ab lettre am waa kër Mor Thiama ñoom tamit ñu ngi leen di sant baax a baax sëñ Modou Anta Leye ci Sine moom tamit gis nañ ab yóbbandeel ñu ngi koy sant bu baax te di ko gërëm xam naa ni li ñu war a wax lépp buñ ko bëggee wax fii la fanaan ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan yàlla yàlla ñu yàlla dajalewaat fii ci dëkk bii nii kenn ku nekk ci ñun fa nga jóge woon yàlla na nga yàlla nga delluwaat ci jàmm ak salaam kenn ku nekk maanaam kenn bañ a am gàllankoor waaw yàlla may ñu den bu déwénee ñu teew fii ñun ñëpp kenn ku nekk bañ a manqué bu déwénee yàlla na gën a dàq ren ñi nga xam si ne ñoo yor presse bi muy Serigne Modou Mbaye ak Serigne Ilimane Lay ñu ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm di jégalu bu baax a baax nag lépp loo xam si ne dëng na ci kàddu yi rek xam leen ni seen mm, rak seen jarbaat seen doom ñu xeebu ji moo fa nekkan di wax lu ci jibit ñu sante ko waaw waaw waaw lu ci jibit ñu sante ko suñu borom rek xam ni maanaam lépp am yàlla rek ñu ngi lu baax a baax sëñ Modou Gueye yow tam ngi lay sant baax di di la gërëm sa taxawaay bi alhamdulilah kon boog asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñu ñi ngi jégalu waat baax a baax ba déwén ak jàmm di leen nuyu di teg suñu nuyoo ci loxol chef de village Baye Serigne Lay mu jotal ko mbokki bu sore yépp mu mel ni tey day dañuy jéggulu d'abord ndax bi ñuy waxee bis bi jaarale ko ci suñu kóllëre yu mel ni maam jaara ak soxna yi ak doom Njaay dañu amoon yéene ñëw yenn si bokk ak yéen bis bii waaye yàlla def ñu amoon programme ci beneen diwaan nekkoon ko ba xaw guddee moo tax ñu doog a ñëw lu mel nii nag képp koo xam ni woo nañu si wax dëgg dinañ ci sawar ndax ñun yàlla daf ñu nattoo lii ñuy wax politique te politique dañuy mooy ki nga xam ni yitteem mooy fa nga xam ni mooy goxam lay soxla di tawat di njàmbat daf ko war a taataan dox ca ay jéego la ca sotti ñu bokk ko jariñoo la ca sottiwul mu xam ni jéem na ndax ab jaam jéem la mën waaye sotti ak ñàkk sotti loxol borom bi la nekk mu mel ni bis bu mel nii su ngeen ci wooyee dinañ ci sawar dinañ ci sawar ndax ñun kat léeg léegi yàlla nattuñu ñu woo ñu ci ay sabar wala yeneen te duñu sañ a bañ kon nag ku ñu woo ci loo xam ni ak jaamu yàlla la ak yiw la ak yokkute la nga xam ni dërëm boo ci def mën na yu def yokkute ci yow bu baax a baax a baax doo rek da ngay sant te am ci cawarte li tax mu wax lu mel noonu mooy dañuy dañuy jàng alxuraan dañuy dañuy jokk ak mbokk te ñaar yi jàpp naa ni ci jàmm yàlla yi gën a kawe ci la bokk ndax su ñu demee ba ni suñu borom dina laaj ak mbokk ba ni ku ko jokk dina la jokk ku ko dog dina la dog bu ko say mbokk xewlee dogoon ca war a dox def ca saw ñaq ndax loolu mooy sa yokkati ndax itam bis bu mel nii ku ko sos am yiw ku ko ca jàppale am yiw kon bu ngeen ko sosee ñu ànd ceeg yéen jàppale leen ci Boussoura nag jàpp naa ni dëkk bu neex jàppale ndax jàpp naa ni li ngeen mënal seen bopp xaaru leen ci kenn wax ngeen ko ci jumaa ji wax ko ci daara ji wax ko ci yeneen projet yi ngeen naal ci dëkk bi waaye am na loo xam ne nag ah am na ñu ko yàlla sase wala bokk am ñu ko war a taxawoo ndax xëy na su ngeen ko mënoon jàpp naa ni du ngeen ko ñaan kenn ndax li nga xam ñaq koy maye ñaanu leen ko kenn mu mel ni courant bi ak aw yoon loolu nag duma wax ni dinaa ko def waaye tàmbali woon naa ci ay jéego waxtaan ci ay kilifa ndax yàlla dimbali na ma ak sama jëmu ji xeebu ji bokk naa ci ñi nga xam ñoo leen xelal Abdoulaye Wade ba mu jóge fi am ñuy xelal Macky Sall ba mu jóge fi tey ñu bokk ci ñi nga xam ñooy xelal Bassirou Diomaye Faye kon jàpp naa ni suñu bëggee lu mel noonu ci dëkk bi yàlla mënuñ ci defal ak yombal mënuñ ci defal ak jàppandal tàmbali nañ ci ak jéego di ci waxtaan ak ay kilifa am na ay diggéey yu ci am yàlla bu diggéey yi neen maa ngi ñaan rek ci foofu lay wàcc sama kàddu ci biir barke bis bi ngeen ñaanal yàlla jéego yooyu ñu tàmbali woon pour la ñuy bëgg ci Boussoura ci wàllu courant ak yoon yàlla sottal ko yàlla def ko ci barke bis bi ci barke mag yi ñu ngi sant ñëpp di jaajëfal ñëpp jërë ngeen jëf.